te loolu yëpp di won mesure yoo xam ne lu ñu mën a dégg la tëj jàkka tëj église tëj tëj tëj tëj ci jamono jooju moom mi ngi siñe ay décret signé na fi décret honoraire honorariat honorariat joxe ay xaalis yoo xam ne ay politiciens kese ñu séddoo jamono jooju lañu am am rapport rapports nag ak keneen ak keneen yu gën a scandale ci ni ñuy euh, ni ñuy xaalis xaalisu réew mi jamono jooju la ñu am rapport bi nga xam ne génn ci distribution aide alimentaire bi jamono jooju la ñu am ay complot yi préparé contre des opposants ba mu andi fi lim fi andi ci réew mi jamono jooju la ñu am sénégalais yi jaaxle nañu tiit nañu nelawatuñu ñoom politiciens yi leen intéressé mooy mburu ak soow cest dire même seen façon de parler mi ngi renvoyé à la justice noos mburu ak soow poñse ay wax yu ñàkk fayda te bañ koy def dañ ne woon xeex covid moo tax tey covid a ngi ni tàkkat naa si anañu kii gisuñu ko kii ñemewul wax mburu ak soow mooy séddoo xaalisu réew mi ci jamono jooju la gis mu voté fi ay loi yoo xam ne ñëpp xam nañ fi mu jëm loi ne sénégalais yi léegi ku ne mais terroriste nga daal di modifier code électoral bi pour gën a mun a xañ ay sénégalais seeni àq pour ñu mun a taxaw jàmmarloog moom kon responsabilité Macky Sall dafa rëy sañ naa sax ni il la le seul et unique responsable de ce qui se passe dans ce pays moo tax bu ko kenn ak essai absurde may wax sama grand frère sama xarit docteur Seydi su ñuy wax ni Macky moo responsable lii moo tax la gestion politique catastrophique de cette crise personnel médical bi c'est pas la gestion médicale et technique ngàcce gaalaama suñu personnel médical kenn munu leen fay liggéey bi métti na risques yi bëri na waaye accompagnement minimal bi ñu waroon am am amuñu ko te ñoom ñëpp xam nañ ko ku ci wéet boppam wax ko koo ci wéetal mu wax la ko kon ñun nekkuñu ci politique politicienne ba tax nag lii daf ñoo ànd ci constant bi ñu wax mooy situation bi mbokki Sénégal situation bu garaw la du situation bu tuuti état bi démissionné na état bi lajj na état bi wane na cuuneem waaye ndax dafa war a tax ñun ñëpp ñu démissionné déedéet parce que du état bi la bakkanam di rot waaye ñun ñii sénégalais suñu bàkkan di rot bu kenn nga la waay weddeeti feebar bi parce que kenn ku ne ci ñun am nga ku la jege ku mu dal kenn ku ne am nga ku mu jege ku bakkanam rot man mii de semaine passée bële rek am nañ ci ñaar ci suñu biir parti te kenn ku ne am nga ko kon buñ ko sàgganee buñ ko néewal parce que feebar bu am na te day reye te anam gi muy reye moo métti ndax di ñàkk di ñàkk euh, euh, ngelaw goo noyyee sa poumon di wër ngelaw goo noyyee nga ngay suffoqué ba jaare noonu dem loolu dafa métti